di euh, remercier ci euh, teew bi remercier tout toutes euh, bon organes de presse yi nga xamante ne nii ils ont répondu à l'appel de de l'événement Raaya Music Awards bu ñuy préparé le vendredi 10 décembre inchallah ci Canal Olympia pour la septième édition je m'appelle Mamito je fais partie du staff et je serai aussi co de l'événement enfin ça fait un petit moment À ma droite, Souleymane Ndiaye, le promoteur de l'événement. Euh, à ma gauche, euh, Guy Pen, je pense que Diarotul nous présenter, notre mentor, quelqu'un qui nous accompagne depuis le début. Euh, on a déjà accusé un petit peu de retard. Voilà. Je vais passer la parole à Souleymane pour qu'il puisse euh, euh, décliner un peu ren fan la lañu toll parce que je pense que ñi am habitude ñëw ci raaya xam nañu à peu près quel est le processus par rapport aux nominations par rapport au vote surtout ak aussi innovation bi nga xamante ni ren bëgg nañu ko indi ci euh, ci événement bi parce que événement bu demee ba am si sept édition euh, dootul lu ñuy présenter ci euh, dans un sens mais ci beneen sens dañuy présenter ay nouveautés ay innovation yoo xamante ne nii dinañu ko indi ci biir organisation bi donc Souleymane Ndiaye la parole est à toi pour nga wax ñu juste ren raaya fu ñu ci fu ñu fu ñu ci toll au niveau de l'organisation comme ni ñu koy waxee bonsoir ma leen di nuyu yéen di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay et di leen remercier encore de d'avoir répondu présent yéen la presse qui est là pour presse écrite que ce soit presse écrite que ce soit presse euh, en ligne que ce soit les télés je vous remercie euh, ci teewaay bi comme ni ko Mamito waxee. ñu nekk ci euh, conférence de presse bi nga xam ne moo nekk suñu septième édition Raaya Music Awards bi nga xam ne ñu ngi koy dem ñu ngi koy defalee chaque année ñu koy ñuy pérenniser chaque année di rendre hommage musique sénégalaise en tant que tel ci musique sénégalaise yëpp ci forme yëpp de ce tey nag ñu nekk ci wàccaay yi presque mu des daanaka deux jours pour ñu dem le huit le dix décembre au canal Olympia à partir de dix neuf heures ñu fas yéene leen jox beaucoup de distinctions sur différentes catégories y a douze catégories yoo xam ne bu ci nekk dina am benn trophée bu fay génn ba mu ñaari catégorie mu nekk artiste de l'année bi ak euh, révélation de l'année bi et sur ce on vous remercie vous tous ki nga xam ni moo doon présenté léegi mooy Mamito mooy yor tout ce qui communication bu Raaya Music Awards et tout ki qui euh, animation bi tamit moom moo ko yore kii di suñu père Lissa Pène nga xam ne mooy suñu mentor c'est lui qui gère tout ce qui administratif de choses dans le Euh, kii mooy yor tout ce qui est technique Babacar Fadera ñu nekk ci euh, invité leen ak euh, ngeen demandé ñu li nga xam ne moom ngeen soxlaa xam ñu jox leen tamit li ngeen xam ne moom ngeen soxla ñu dem ci ci jàmm commencé ci jàmm eggale ci jàmm. de de sélection. Raya à chaque fois dañ ciy liggéey ñu nga xamante ne nii puisqu'on parle pense que animateur rajo yi ak yi ñooy ñi nga xamante ne nii peut-être ku génne sax sa produit ci ñoom nga koy njëkk jaarale pour que ñu diffuser ko donc euh, kenn gënu leen a xam yan produit ñoo nekk en vogue ak aussi ci euh, dafa am benn année ñu ni euh, à partir de décembre 2020 ba décembre 2021 produits yi nga xamante ne ni génn na ci produit yooyu ñooy bokk ci éventuels sélectionnés yi bu ko defee ñu woo tout ce qui animateur képp kuy animateur ci rajo yi ak télé yi euh, ni leen proposé leen ñu liste ci ci mbalax list ci hip hop liste ci telle et telle musique yenn artistes ñoo ñoo ñoo ñoo nekk déjà ci euh, timing bi mooy ci année bi ba pare ñu génne fi ñu génne fi produit bu bees léegi animateur yooyu ma jël benn exemple bu ñu dee dis donc dañuy am 10 listes 10 propositions bu ñu paree dañuy jël 10 listes yooyu teg ko xool yan artistes ñoo bokk ci maximum de liste ñooñu ñooy sélection yi tey jii bu sept art euh, sept animateurs boolee seen liste ñu fekk ci euh, euh, benn par exemple Dip Doundou gis sept fois ñu génne teg juste pour wax leen transparence bi nga xamante ne nii moo ci parce que nous on n'est pas des des des des des de la musique on ne pas des musiciens donc acteurs musique yi ci boppam ñoom ñooy def la sélection ba pare bu ñu defee sélection bi ñun on fait juste un travail de coordination teg liste yi. génne li nga xamante ne ni moo ci artistes yi ci gën a fës ñu génne leen répartir leen dans des catégories parce que ku ne xam na ni euh, peut-être Youssou Ndour du Dieyla Dieyla mën na nekk révélation Youssou Ndour mënul nekk révélation donc c'est juste boobu liggéey la ñuy def après avoir reçu la sélection des euh, bon comme ni ñu koy waxee chaque chaque année raaya moom chaque année day yokk dañ ciy yokk ay kii catégories comme nu ko Mamito waxee à la base au début dafa nekkoon artiste de l'année tube clip de ne ak révélation de l'année ak euh, clip religieux yi ñu yokk ci daaw géej ak daawati géej ren ñu bokkaat yokkaat ci euh, daaw ñu yokk ci artistes de la diaspora ren ñu yokkaat ci les sites en ligne muy presse en ligne presse écrite bi ak organe de presse yi donc euh, comme ni ñu koy defee chaque année Raaya moom pour les votes pour les nominations pour chaque nominé on les appelle artiste bu nekk dañ koy woo suñ ko jotul ñu jéem a na nan lañ def pour jot son manager suñ ko jotee ñu jéem ne ñu wax ko ni nominé nañ ko ci Raaya Music Awards ci tel catégorie et loolu noonu après dañuy attendre pour am seen retour envers seen euh, label yi ñu bokk pour ñu mën ñu wax ñoom si ils sont d'accord ou comme chaque année day am ñoo xam ne dañuy décliquer parce que Sénégal dañu ñun ñëpp ñoo ñun ñëpp xam nañ système bi nu muy demee ñu bëri dañu ragal perte xamuñu kii moo gagné kii moo nekk kii mais il suffit que ñu nomine la ci ay awards rek jàppal ni tu fais partie des euh, des gens yi nga xam ne ñoom lañ gis ni ils ont plus brillé ci année boobu noonu donc sur ce am nañ ci ay quelques complications pour le début tout au tout au début ñoo xam ne jotuñu leen ñi compliqué na donc am na ñoo xam ne nominé nañ leen mais gisoo lañ leen ci liste yi xam naa ne après loolu dinañ ci gën a indi leeral et ci kaw loolu noonu comme ren ni ñu koy commencé sargal chaque année dañuy sargal cinq personnes ren ñu doon jàppoon di joxe raaya d'honneur bi les musiciens et les ténors de la musique sénégalaise ren on a pris le raaya d'honneur pour jox ko monsieur le ministre de la culture lay Diop euh, euh, di sargal monsieur Kessi Bousso PCA de la euh, de Sorano di sargal aussi Coumba Gawlo Seck artiste compositeur di sargal Paco jaata bu artiste compositeur bu nekk à l'international aussi di delloo sargal aussi Ali Bathily muy directeur de la SODAV ñooñu lañ fas yéene sargal ci guddi gi boole ko euh, onze catégories yi nga xam ne moo fi nekk yi nga xam ne ñoom lañu nominé te artistes yi nekk à peu près cinquante artistes sur différentes catégories ci guddi googu nag ñu ngi koy commencé comme ni leen ko Mamito waxee début bi vote lay nekk day am vote pour un mois de vote boo xam ne les votes ça représente 30 pour cent de euh, de la pourcentage et les 70 pour cent qui restent c'est les membre du jury yi nga xam ni gise moo koy formé ak yeneen mentor yoo xam ne ñu ngi nekk ci ginnaaw ñoo xam mënuñu ñëw ku ci mel ni euh, grand presse ñooñu mënuñu ñëw parce que dañu jàpp ñoo tax ñu ñu ñu ñooñu noonu ñoo nekk ci ginnaaw ñoom ñoo koy ñooy ñooy joxe les pourcentages des 70 pour cent qui restent et pour ça après on va se réunir en comité directeur ñu dajale point yëpp pour sortir les gagnants yi nga xam ni. ce soir, prendre la soirée, la soirée du 30, du 10 décembre. vendredi 10 décembre boobu la nit ñi di xam kan moo gagné kii moo nekk moo chargé tout ce qui est communication mais comme ni mu la ko waxee moom sax xam kan moo gagné parce que c'est les sous enveloppe le jour de l'événement la gars yi di xam ni ñuy demee. ren nag on a on s'est parlé et on a conclu comme quoi que pour chaque artiste bu ñu nominé ci benn catégorie ne dans la salle. même si tu remportes le prix boo nekkul ci salle bi dañ koy jox au second parce que on ne peut pas continuer comme ça ça fait sept ans qu'on travaille sur ça et on est tellement transparent sur beaucoup de choses sur lépp lu ñuy def du début à la fin mën ñu concevoir qu'on travaille début d'année ba fin d'année ñu jël la nominé la tu encaisses ñi dañ la nominé tu es d'accord après nga nekk ci optique boobu nga bokk ba le jour J tu restes chez pour nii naa xaar bu ma gañee nañ ma indi trophée bi dootuñu yóbbulati kenn trophée c'est barré loolu moom c'est interdiction la totale au niveau de Raaya Music Awards soo gañee si tu n'es pas là amoo justificatif bu leer nañ dañ koy tëb indi le second le second bu fa nekk ñu dem ci le trois troisième ba ba keroog ñuy dem bi ki mujj parce que on ne peut plus continuer comme ça parce que on se décarcasse pour dépenser des millions pour que les artistes restent chez eux pour ne pas venir après xaar ni ñoom ñoo gagné après ñu envoyé le message félicitations des trucs de maintenant loolu dayoon ça ne marche plus comme ça loolu on tenait à clarifier sax pour ñëpp ñu xam ko après ñu avancer ci leneen beneen bi mooy que année bi tapis rouge bi day am prix tapis rouge comme ni ñu koy defee chaque année ki gën a la tenue la plus te époustouflante dañ koy primer ak boo xam ne day ànd ak ay lots ci tapis rouge bi et on a besoin de tous les artistes à la fin ñi nga xam ne dañu am trophée yëpp pour photo finale bi ñooñu dañ leen soxla beneen bi nga xam ne moom ñu nekkoon ci leneen loo xam ne tamit xam naa ñu bëri dañ koy laajte am na ku mel ni tey ji Adiouza nominé nañ ko ci Raaya Music Awards mu indi compliqué euh, polémique parce que dañ ko nominé Euh, mu wax ak manager mu yónnee ñu photom ñu defaral ko affiche yónnee ko ko mu jël affiche bi baare ko elle nous a fait comprendre que moom awards bu mu bokk Sénégal awards bu ñu ko boolee que mu nekk Sénégal wala Afrique du ci bokk ñuy leeral ni gars yi ni du ñu jékki-jékki rek o hasard jël benn artiste dugal ko artiste bi ñu jël dinañ jéema fexe ba bu ñu parce que nekkul ñun ñooy nominé en tant que tel man su fekkoon man maay nominé wala Mamy mooy nominé boobaa sama ay xarit waykat yu bëri bëri naa ci ay xarit samay xaritu bopp laay nominé mais comme c'est transparent tellement que chaque année dañuy am dañuy su ñu jëlee quinze artistes quinze animateurs année bi déwét dañuy changer yeneen animateur yoo xam ne ñoom la ñuy jël ñooñu suñu nominé ñu réunion en comité directeur génne ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñoo ñoo nekk ñoom ñëpp gis ni ñoom ñoo liggéey ci at bi ñu contacter seen ay euh, seen manager yi wala seen label bi wala artiste bi directement suñu amee numéro suñu amul numéro on cherche buñ ko mënul gis buñ ko mënul jot on va tout pour gis ko suñ ko gisul buñ dugalee affiche yi dinañ ko jot su ko jotee après on va revenir sur waxtaan ci loolu noonu soo nee ma carrément ni que bëgguñu bokk ci awards te dañ lay retiré solennellement parce que nit bu nekk am nga droit ne bokk naa wala bokk ma mais ci kaw loolu dooni ma man bokk naa ba pare joxe loxo ba pare rocc làmmiñ damay bokk ba pare ñu dugal la ba pare après suba nga bëgg a décrédibiliser sama événement événement bi kenn mënu ko décrédibiliser parce que sénégalais yi ñoo ko moom man moomuma ko commencement lañ ci am mooy première édition bi ak deuxième édition bi loolu man maa ko moom parce que man maa ko doon commencé teg mais bi mu demee ba continuer moomatuma ko mënatuma ci def dara parce que ñi ko moom mooy les sénégalais que ce soit sénégalais bi nekk fii que nekk extérieur diaspora bi ñëpp ñoo ko bokk. donc ñuy leeral rek tout le temps comme ni ñu koy waxee chaque jour di ci woo ñëpp di ci convier ñëpp jour bi mu nekk le 10 décembre canal Olympia ñu ciy woo mélomane di ci woo sénégalais yëpp lañ leen di woo ci bis boobu noonu ngeen ñëw ñu liggéey ci raaya wan leen li ñu liggéey ci année bi yëpp parce que comme ni ko Mamito commencé waxee décembre la ñuy jël ba de novembre donc ñu génne les si yooyu noonu. ñu commencé waat novembre génne waat yeneen clip dañ leen di boole ci année bii di ñëw parce que à partir de novembre dañuy commencé euh, solo liste yi donc duñ ko génnee donc liste année boobu jeex na donc ci noonu la ñuy liggéeyee ñu leen di gërëm saa su nekk ak seen teewaay di rafetlu teewaay bi ma koy ma leen di jox suñu grand Guissé Péne mi nga xam ni début début début à la fin bi ñu commencé première édition ba léegi ñoo ngi moom ñu koy ñaanal mu toog suñu wet di ñu liggéeyee ñun fii ak cent ans ci kanam merci Merci Mamito. Merci Souleymane. Merci Abakar. Euh, di toujours rek rafet rafetlu euh, ces moments parce que comme j'ai eu à le dire l'année dernière si vous allez en Guinée ils ont leur tamani d'or ngeen dem au Mali ils ont leur djembé euh, nga dem au Burkina ils ont leur koundé en Afrique du Sud Yàlla Kora donc chaque pays rek am na benn moment bu muy magnifier euh, liggéeyu artistes yi seen réew au Sénégal il y a eu beaucoup de tentatives yoo xamante ni on peut les appeler des mornais on a connu beaucoup beaucoup euh, d'organisations yoo xam ne qui tendaient vers ça parmi lesquelles mën na nommer ay Bideew et yooyu yëpp jaar nañ fi et si euh, Raya Awards a vécu sept ans et espère encore vivre beaucoup plus autant, c'est parce que d'abord, c'est un... Euh, ils sont très engagés ci lu ñuy def parce que ñoom ñu koy def ñëpp kenn du ci musicien. Ah, bon pour ñu commencer fii nii ci la liste bon comme ni nga ko waxee tu sais que pour les réseaux sociaux ci information bu gàtt nit ñi dañuy jënd visibilité dañuy jënd contenu mën nga dem tey jii fay jënd nga am plus de millions nga am yoo xam ne c'est fictif donc ci loolu noonu mënoo ci basé pour ne telle personne a tel parce que parfois c'est question de moyens la si tu as les mën nga jënd ñu ñu ñu propulser la nga am plus de vie or que tel n'est pas le cas pour beneen bi sànq yaa ngi doon wax ci critères yi critères yi moom wax nañ ko ba pare c'est pas que question que ni dañuy xool ki nga xam ne les personnes yi nga xam ne ñoo gën a briller ci at bi parce que dañuy xool ci album bi xool ci son yi nga génne c'est pour cela que bu ñuy jël euh, révélation soxlawuñu sax ki nga xam ne dafa am clip wala ki nga xam ne dafa am son bu mu génne mun nañ am kenn koo xam ne dafa nekk rek ci koñ bi nii di woy nga koy dégg muy woy il a ba c'est une révélation révélation la koo xam ne soxla na nit ñi xam ko kooku noonu ni nga koy jël boole ko ci groupe bi su fekkee ni boobu liste boobu gars yi di nominé nominé nañ ko ci loolu noonu animateurs yi ci leneen bi nga ne animateurs yi ce que nekku ñu kii dañuy sóoraal toujours que ni dafay am copinage Mamito wax na ko sànq neen la dinañ choisir parce que sur les quinze yi nga xam ñoom la ñuy choisir tey jii di nga gis ñu tijji liste bi carrément kii nominé la kii nominé la kii nominé la kële nominé la donc kooku noonu ce qui est boo xoolee sur les critères basés yi ñuy xoolee ni kii euh, son bi mu génne wala album bi mu génne dafa toj wala tojul suñ ko xoolee dinañ xam ni kii war na mën a bokk wala mënul bokk. donc euh, pour euh, pour boycott bi mosuñu am artiste boo xam boycotté na mosuñu ko am c'était la première fois ci comment dire ci Adiouza et c'était du du boycott incompréhen euh, benn incompréhension la faut juste que ñu ñu kii loolu aussi et puis on n'est pas dans l'animosité mhm. li li li indi problème Adiouza man Adiouza je lui ai parlé directement c'est une sœur quand gisee mi doomam la donc amuñu benn anima animosité ak ak ak Adiouza dafa amoon incompréhension maanaam benn nit bu nekkoon ci diggante bi moo moo moo moo un peu jaxase carte gi mais Adji elle a aucun problème ak Raya Euh, et que aussi li mu def man je lui directement defu ko ak animosité wala dara euh, euh, incompréhension la bu amoon mais Raaya nominé wul Adiouza te tàgguwu ko. loolu loolu ñu teg ko de mais la personne bi ñu waxal bi waroon faire passer euh, l'information auprès de Adiouza personne boobu nga xamante ni moo joxe photo yi parce que c'est pas des photos téléchargées c'est des photos réelles bu nit bu bokk ci staffam joxe pour ñu def affiche yi donc incompréhension moo ci amoon te waxtaan nañ ci par la suite euh, et que voilà tout est euh, ñu ngi passé à de meilleurs sentiments mosuñu mm. am boycott mosuñu am aucun problème ak benn artiste buy revendiquer quoi que ce parce que lépp dañ koy teg ci yoon mu transparent parce que ñun ñëpp a xamante presque ñu nekk ci raaya bi ak euh, artistes yu bëri xamante nañu et que dañuy tase ci yeneen ak yeneen ak yeneen i milieu donc musul am vraiment lenn lu nga xamante ne nii dafa négatif lu jugee ci artistes yi ñëw ci raaya wala lu jugee ci raaya dem ci artistes yi donc jusque là euh, alhamdulilah je pense que damay bàyyi Ndiaye mu répondre ci vote électronique yi. damay magnifier seen seen générosité. Mm-hmm. parce que suñ leen di nommer tamani door wala. oui oui. du ñu leen di avertir. c'est vrai pourquoi ñu ñu leen di avertir chaque fois ndax ñu def la wala duñu la def non su fekkente ni ku bëggul ku la def bul liggéey. su sa produit génnee intéressé nit ñëpp. Mhm. intéressé na la. Ça devrait couler de source normalement. Mais bon, puisqu'on est dans une société de maslaha, on va maslaha. Alors, le reste, nous nous leen di remercier di leen invité yéen ñëpp le jour de l'événement et que presse bi nekk fii yéen ñëpp ngeen bind seen tur ñu mën leen euh, teel a caler seen ay accréditation privilégier leen le jour de l'événement parce qu'il y aura beaucoup de presse et que comme vous avez répondu présent vous tous on va vous privilégier pour yéen ngeen am accréditation mais pour ne pas que ça soit en polémique presse bu nekk deux accréditations la am deux les presses en ligne comme les presses écrites deux accréditations pour mu leer balaa ñuy ñëw ci jour événement merci que